asalaamaaleykum monsieur le premier ministre ak gouvernement bi chers collègues députés chers collègues de la presse maa ngi leen di nuyu monsieur le premier ministre wax na léegi liberté d'expression ñi fi dem kaso ci juróomi ati yi yëpp lu mel ni Pape Alé Niang liggéey moo ko fa yóbbu Adama gay opposant la man mii dox naa ñu jàpp ma dugal ma kaso loolu du yomb ñu ñëw ci wàllum inondation yi monsieur le premier ministre cinquante milliards pour un plan décennal moom ngeen wax jëlee ko 2012 2022 nee ngeen di ngeen di ngeen defaat un deuxième plan décennal de 2023 à 2033 750 milliards yoo xam ni boo demee tey Géejawaay banlieue Dakar li am ren ci ndox mi fii ci Ndakaaru kenn mësu koo gis lii say Seydina Limaamu Laay monsieur le premier ministre je n'ai rien contre les lions Abdoulaye Sow six milliards yi ñu wax ne moom lañ dépensé six milliards mooy budget wu lii say Seydina Limaamu Laay qui a 320 enseignants, 130 agents, euh, 1200 élèves. Il risque ruine. Nous avons dit que nous avons dit que wax dañ kaa xam yaakaar naa ni kon priorité sur priorité mi dara gënu koo nekk priorité ñu ñëw na ci lu jëm ci wàllum groupe des médias cinq cent quatre-vingts pères de famille yu fa ne te boo sàgganee ñoom ñëpp chômage la ñu jëm te nee ngeen président Macky sal moom mooy roi sociale sociale boo xam ne moom muy créer ay chômeur moom la Macky Sall di créer te loolu war nañ ci wax lu jëm ci wàllum insécurité monsieur le premier ministre fu leen neex mooy am sécurité fu leen neex lu am sécurité ñu ñëw ci wàllum stade yi ngay wax wax nga stade Caroline Faye euh, wax nga Bambey wax Parcelles Assainies waaw doo tudd Guédiawaye su Macky Sall bañee ñu am beneen association des maire day tëddee njaaxaanaay te def koo deful ay maire am daal nice képp kuy maire opposant mu taxaw ci yow Macky Sall nag na am esprit de dépassement comme rakam ji toogoon fii léegi gis naa mu dem Aliou mi ma wutu ci mairie ba mu jéem a góorgóorlu tolloo la nit ñi xam ne il est le président de tous les sénégalais te moom loolu lay wax chaque jour mais Macky Sall képp ko ànd ak moom alhamdulilah ko ànd di ngeen noppi de di ngeen vous comprenez ñu bëgg nag monsieur le premier ministre ñu wax ci wàllum euh, euh, tolloole bi ngeen doon wax. ne tëddee njaaxaanaay gouvernement social gouvernement lii gouvernement laa ñun loolu lañ bëgg ngeen wàccoo ak moom te wax tamit lu jëm ci wàllu dundinu askan wi nee ngeen wàññi ngeen dund gi dund goo xam ni ban côté moo wàññeeku ban côté moo wàññeeku loolu la ñuy laajte beneen bi nag moom mooy bu leen farte article vingt sept bi gis naa ne sa discours bi da nga koo tëb xam naa bëggoo e dugg parce que pour des raisons que tout le ko connaît mais Macky Sall na xam ne 2024 na takk ay bagaasam La parole est à notre collègue Khady Dieye. Demba Diop se prépare.